une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafi alxalq sayidi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel ci jataay bu tedd bii <clears throat> ci di jataayub alquran ci dëkk bu tedd bii di Touba waaye ci weer wu tedd bii di weeru rajab di ñaan borom bi subhaanahu wa mi nga xam ne lu mu taral mu tedd yàlla nañu dugal ci biir teraanga yooyu ba taral ñu àdduna ak alaaxira di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye bu ñu tuddee sunu xarit sëriñ Modou Kara bi nga xam ne mu nekk sunu wet dana mën jël nuyoo bi jox ko ci kilifa yépp ku nekk ak daraja jim ci am ni ko sëriñ Saalihu waxe li ñu dajale fii tey dinaa bu ñu sante sëriñ Cheikhouna Bousso yi nag ndax wax dëgg yàlla euh, lu baax képp ku la xiirtal ci nga fekke ko waxuma laaj nag nga def ca lenn lu dul ab participation kooku amutoo ak fayam day faral di wax ne kaay waxtaanal ma moom jërtu neexal kenn kaay jaamu yàlla rek la kaay jaamu yàlla rek jërtu neexal kenn kii nga waxtaan loo bu fay amee moo la waroon fay ndax sëriñ Sadio ko dun ñu sànq ci saxaaba yi lañ daan daj ci lislaam waaye noonu lañ daan dajit nag ci woote bi nga xam ne noonu lañ daan daj ci propagande nit ñi ak dagale leen kon koo xam ne nag dañ laa baasal jël nit ñi wutal leen fuñ toog jël jumtukaay yi wax boo xam ne boo waxee ñu dégg la ñu jox la ko kooku moom ku la defal loolu wàcc na ak yow yàlla yàlla boo defal tawfeex ni sëriñ Saliou waxee léegi ñu waxtaan ci solos solos daara bu ne daara nag ñu xam ne daara daaray alxuraan moo ñu tax di wax donte léeg-léeg nga dégg kuy wax daara yeneen xeet ya jublu ci yeneen école yi waaye ñun bu ñu waxee daara daara yi alxuraan la ñuy wax alxuraanul karim day téere boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot loo ko ko xeet wi xeet wi ñëpp ku ne war a am yitte ci war a am yitte ci téere bi agsi ci yow war a am yitte ci boo jotee ci téere bi nga tasaare ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab dundam ab jàngalekat la woon diirub ab dundam ab jàngalekat la woon balligh ma unzila ilayka la ko yàlla wax li nga xam ne moom moo moom lañ wàcce ci yow jot li ko mu nekk diirub ñaar fukki at ak ñett yoo xam ne lu wàcc ci moom mu jàlle ko dawul téye dara alxuraan ji mbokk ñu wàññil éco bi tuuti rek alxuraan ji amul lenn loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppi na ko ci dolliwu ci dara wàññiwu ci dara ñii ñu koy tiimee noonu la jugee woon ci moom day faral wax ne bokk na ci liy gën a màndargaal dëggu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax li nekk ci téere bi ci ay aaya yoo xam ne day day day day jubbanti wala muy yedd yonent bi sallallahu alayhi ci ay aaya bu doon coobaree boppam rek xëy na mën na koo dindi waaye moo yem koy tagge ñoom la yemale wa innaka la ala xuluqin azim téere ba ko wax moo ne ko li ma tuxarrimu maa ahalla allahu laka tabtagi mardaati azwajik ci téewul ñaari aaya yépp la ca bàyyi ñu ñëw doon kon loolu day màndargaal ne téere bi moom amul lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yokk wala lu ci wàññi bi mu wàcc ci moom diirum ñaar fukki at ak ñett yooyu it bi mu fiy jógee dénkaane woon na ne na ngeen ko tasaare na ngeen fexe ba na ci ñëpp jot ndax lool la ko yàlla waxoon wa innahu la dikrun lak waaye nag wa li qawmik wa sawfa tusaluun ñëpp ko bokk yàlla na ko téere bi na xam ne yaay responsable principal bi yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen jullit ñi yéen responsable principaux yi alxuraan yi na ngeen xam ne danañ leen ko laaj danañ leen ko laaj jullit bu nekk nag war naa waajal tontoom ci buñ koy laaj digganteem ak téere bi tontoom mën a leer tontu nag fii lañ koy lijjantee fii ngay nekkee nekk ak téere bi di jàng téere bi boo ko mënee jàngale nga ko jàngale liñ ci mën a jëfe lépp nga di ko jëfee di déglu ndigalu téere bi di moytu tere téere bi loolu mooy li nga xam ne moom la ab du warloo ak téere bi tasaare gaag jikko woo la ca war lépp mu yëg ne lu ci def day warte fu ko war waaye lu mu ci defutit da koo mënul waaye lu ko war la mu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax kon ci taxawaay ya mu war a def mu def ko ngir alxuraan ji tasaaroo loolu responsabilité la boo xam ne jullit ñëpp ci bokk yam moo tax bi mu yendu jógee salaasam ci tënk bu gàtt saxaaba yi am taxawaay buñ taxaw ci téere bi Abu Bakar ibn Siddiq radiyallahu anhu mi njëkk a nekk xalifa bi lislaam moo njëkk a dagale bi ba nekk ci diggante ñaari feggu kaamil bi Abu Bakar moo njëkk a dagale la war loon dagale gi ci Omar la jóge woon Omar ibn Xattaab bi fi yonent bi jógee sallallahu alayhi wasallam dafa bari ñoo xam ne dañoo génnoon ci lislaam ñenn ñi ne nangootuñoo joxe asaka ñenn ñi daal lañ warloo woon ak yonent bi nangootuñ ko warloog Abubakar Sadiq Abubakar daal di xeex ak ñoom xeex yu métti xeex yu métti xeex yooyu nag am na ci xeex yoo xam ne ñu bari ñi mokkaloon alxuraan dañoo faatu am xeex boo xam ne la ca faatu mbooloo lañ mbooloo mu bari faatu ca ci benn xare ci ñoo xam ne mokkaloon ma Omar ñëw daal ne Abubakar Sadiq ndax duñ dagale alxuraan ba mu nekk benn kaamil balaa am lu ci manqué ndax am na parti yoo xam ne ñëpp mokkaluñ ko am na ñoo xam ne ay ay diggante lañ mokkal bu ñu rayee ñi mokkal ba noppi rey ñoo xam ne diggante lañ mokkal ñoom dong ñoo ko mokkal kon dana am lu réer ci alxuraan kon dañoo war dajal alxuraan Abubakar Sadiq ne ko nan laay defee loo xam ne yonent bi dund na ba faatu mosu koo def ak hadis buy tukk tëkkoo ba ci képp koo xam ne sos na dara sama ginnaaw des na la bidaa doon des na ko delloo ci loolu yonent bàyyi ko fi waaye Omar te bàyyi Aboubacar te koo bàyyi di ko ilhaax di ko lëjal di ko lakkal di ko lakkal ba yàlla leer lu dënn moom Aboubacar mu nangul ko ñu daan dagale alxuraanul karim keroog ba ko dagalee Abdullah ibn Sabit la woo mu ñëw mu nekkoon secrétaire particulier yonent bi sa ci ñu daan bindal wax yonent bi la bokkoon mokkal na alxuraan mënoon na ko bind moom Abdullah ibn Sabit Zayd euh, ibn Sabit laay wax Zayd ibn Sabit waaye bi nga xamee Aboubacar woo na ko mu ñëw mun ne ko dama laa bëgg a dénk nga dagale alquran mbokk yi mission bu gën a rëy loolu amul maanaam rendre service jullit ñi ak l'islam bu gën a rëy loolu amul kuñ fal ministre dangaa war a bég dara jey ndomb ak tànk kuñ ko jox da ngay waaye ñàkk yëg responsabilité la ndax zéro responsabilité bi ñu ko waxee loolu fi mu sëgg day jooy di jooy di jooy ba boo tibbee ci suuf si boo ko nalee muy muy siit ngir lan mu ne téere bi ñu may dajaleloo bu ci wenn xaraf dolli ko waxut benn baat de wenn xaraf waxut benn aayit dolli koo jullit ñi di ko jàngaale ba yowmal xiyaamatil akbar ñu demee ko xisaab ne man maa ko dolli ci téere bi wala téere bi wenn xaraf ma wàññi ko ci julli ñu di ko ñàkk jàng ba yowal xiyaamatil akbar ñu xisaab ko teg ko sama kaw fu ma jëm moom loolu la yëg mënoon naa lalu bind alxuraan mënoon naa daje ku wax yi maanaam ñi daan bindal yont bi képp mënoon naa daje ñoom bind defu ko dafa daal di wut ay ay ay ay ay ay sartam bokkoon ci sart yooyu bu ci gën a siiw mooy du nangu ku ne dégg naa ci diw mu déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam aaya sàngam ku nekk da nga naan sami'tu min fii rasulillahi aaya kata wa kata dama dégg naa ci giriñ yonent bi aaya sàngam ndax mboole alxuraan bi ni mu mel yonent sax moo ko doon classé noonu maanaam da gis benn saar bu wàcc ñooy la aaya yépp madina la wàcce waaye aaye sàngam ak sàngam moom wàccul madina màkk la wàcc wala safaan ba di am am yonent moo doon joxe yi nga xam ne mi ngi ko doon naqlu ci lawhul mahfuz jibril di ko wax wax nii la nii la nii la ba ni mel ci tënk bu gàtt ba ñu bindee kaamil ba noppi Seydina Aboubacar yor kaamil bi ba ni mu fi jógee Seydina Omar daal di fiy nekk xalifa yor kaamil ba ba jógee fi bi mu fi jógee jigéen jigéen moo gardeloon kaamil boobu l'islam bépp kon jigéen yàgg naa am responsabilité damay faral yàgg naa am responsabilité bu rëy ci téere bi bu rëy ndax mooy ki nga xam ne am na jamono yoo xam ne benn kaamil moo nekk ci àdduna bi yépp àdduna bépp benn kaamil lañu am ñu dénk ko Sayyidatuna Hafsa moo ko yoroon benn kaamil. te wax ne loolu mooy wax yu ki njëkk a ñëw muy iqra bismi rabbik bi ba mu tiitee dellusiwaat ci kër gi jigéen la fa fekk muy sayyidatuna Xadija moo ko dalal kon ki njëkk a dalal wax yu jigéen la ki njëkk a dalal yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu tiitee ne ko xam ma loo mën a gis waaye lu mu ñàng-ñàng lu mu raglu raglu du doon lu bon ci yow yow jokkatu bokk bi yow ku baax ki yow ku maanu ki yow ku wax ko qualitéem ngir lan it idmi ina nafsi maanaam mu mu indil ko ak dalal dalal dalal xelam jigéen ko defoon yamu ca de jigéen ak natt woon ba xam yi lii di ñëw wax yu la wala seytaane dindi muuraay boppam ne ko ndax yaa ngi gis li nga doon gis mu ko déedéet gisatuma ko de mu muuraat bopp bi ne ko ndax yaa ngi ko gis mu ne ko waaw maa ngi ko gis mu ne kon du seytaane bu doon seytaane bu ma dindi sama muuraay du dem Sayyidatuna Xadija moo ko defoon ñetteel ba mooy mu ànd ak moom ne ko nañ dem seeti koo xam ne xam li lu man doon waaye man naa la yóbbu ci koo xam ne mën nañoo wax lan la ànd ak moom ci wax ko li borom këram yi gis Waraqa ne ko aka neexoon buñ koy génne ko tumurankel mu fekk ma fi mu ne kon danañ ko génne dañ ko tumurankel mu ne ko waaw lii ko indi daan la tumurankel na muusu Moussa maanaam Jibril ma daan dikkal Moussa moo koy dikkal xoola ñett yooyu yu am solo yooyu kenn moo ko tatala tatagale alquranu karim jigéen yemu ci de keroog ba yàlla ne ko yaa ayyuhal mudaththir qum fa jugal yow yow mi sangu jugal waaraate mbir mi jeex na ba mu ne kan laay woo kan lay waar ak Sayyidatuna Xadija moo njëkk a teg ci loxoom ci dënnu na ko man ki njëkk a dugg ci lislaam kon jigéen la yi kon jigéen bu demee ba ubbi daara am ci pëstéef am ci taxawaay maanaam day fettali fàttali feddali démb damay wax ne kerug lislaam gi nga xam ne ci la ñuy ñun ñëpp ker gi neex ñun dereti jigéen moo ko njëkk a suuxat muy Sayyidatuna Sumayya jigéen moo njëkk a faatu ci lislaam kon jigéen yàgg naa am ab cër ci lislaam dañuy dem ba léegi boo déggee ñu ñu bëgg a dawee dal jigéen wala ñu bëgg koo gannaawal wala ñu ba yàpp ne da cee bokkul ah kay ñàkk jamono ju nekk nañu bàyyi xel ne responsabilité yu rëy la ci am foofu dama ci doon dugal parenthèse bu ndaw boobu rek ci dagee rek Seydina ci Seydina Hafsa jamono ji nga nga gardé kaamil bi fi jógee Seydina Ousmane nekk xalifa am ganeen dagale ko am nañ bàyyi xel ne dagale gu njëkk gee mooy dagale koo xam ne dañoo bañoon lu ci réer dañoo bañ ab parti bu ci réer dagale gi Seydina Ousmane nag Xusayfatul Yamaani moo demee Iraq tukki fa ba mu delsee gis fa lu yéeme yu bari yu wuute ci njànginu alxuraan ku nekk di fëgg dënam naan maa alxuraan ju li nga yor maanaam ñu dem ba doon ci dugal ci seen lahajaan maxalliya yi maanaam comme bu doon suñ Sénégal gi dana yomb joxe misaal nga jàpp ne ayn ne gi mi ñu till ah noonu negra ayn ne dégal nga xam ne mag ñi ñoo ko daan jël islaahaat yu mag ñi daan def nga xam ne ayn ne gi mi ñu till mooy ayn gi nekk ci alayhim till day ngàllu bari ñu ne la ayn ne gi mi ñu till boo génnee ci àll bi tili da nga ko gis lu bari ci tili day xew lu bari ñu la xoolal jimiñ jimiñ nga nee mu mel noonu la ayin gi mel waaye yow boo nekkee foo xam ne yow mosoo gisul tili nag yow yow mi jàngale ba nag bëgg naan xale bi ayin ne jimiñu tili te yow bu ne la jimiñu tili ni mel mën naa am doo xam nañ bàyyi xel ne loolu islaahat zamaniya mahaliya la yoo xam ne man ay jamono la woon léegi nag ci misaal yooyu nag ñu jël ko dugal ko ci fa ñëw ne Seydina Ousmane gis naa lu yéeme loo xam ne bu ñu sagganee li dal waa injiil danañu dal mu ñu am ay alquran yu bari yu bokkul ndax anaajiil yu bari la ne kon mu ne ko nu ñu def mu ne ko nañ dajale waa téere bi mu ne Seydina Ousmane day radiyallahu anhum mënoon naa jëlaat kaamil ba Seydina Hafsa amoon copier ko boo ko déggee ñoo ne al mushaful Ousmane yi mooy Seydina Ousmane moom mujj dagale kaamil bi ca norme yi mu ko dagale yàlla dafa fekk yàlla dafa dogal Zayd ibn Sabit bu njëkk ba mi ngi dund moom lañ woowaat dénkaat ko dagale bii moo dagalewaat dagaleem ñaareel bi xéewal gu rëy la am ci alxuraan dagale ko ba noppi nag doog ko doog a jël kaamilu soo daa xas saba comparé ko muy xarfan bi xarf waaye dañ bàyyi xam ne kaamil yi may wax yëpp nag bi ñu ko dagalee maanaam waxuma la masque amu ci waaye tomb sax amu ci tomb masque waxuma la masque amu ci waaye tomb sax defuñ ko ko tomb moo waral ba kii mën a jàng riwaaye bi kii mën a jàng riwaaye bi ñu tiim benn be ko ca kii jànge ko nii kii jànge ko nii ci misaal dama koy joxe misaal lu bari warsh riwaayati warsh bu ne in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu keene in jaakum faasiqun bi naba'in fatasabbatu yax ba fa nekk fatabayyanu ak fatasabbatu tomb yaa ngi xaar foo ci tomb mu dem ca booba kon noon lañ dajale woon téere bi mbokk yi nit ñi liggéey ci ginnaaw bi nag bi Seydina Ousmane bi fi sahaaba yi jógee rubanda alayhim taabi'ani topp ci booy faral booy dégg da ngay dégg da nga naan ilmul hadis ilmul mantiq ilmul usul ilmul fiq ilmul bayaan ilmul naxw waaye boo àggee ci alxuraan moom ulumul quran ngay wax ulum la ay xam-xam yu bari lay doon ndax xam-xam bu nekk ci xeetu xam-xami alxuraan yi ay liggéey ay nit liggéey nañ ci maanaam ci misaal rek tafsirul quran képp tafsirul quran bil quran lu mel ne Muhammad Amin Shinqiti ci adwaul bayaan fii idaahil quran bil quran nga xam ne aayab alquran bi mooy tekki aayab am na ñoo xam ne dañuy tafsir quran bil ahadis annabawiyya muy euh, ci yiñ soloo am ñoo xam ne dañ koy tekkee ci hadis ci sahaaba yi ridwanullahi alayhim am ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi koy tekkee lugawiyan am na ñoo xam ne mantiqul quran balaaxatul quran am na ñoo xam ne lu nekk ci fànn gu nekk nit liggéey na ci bu ñëwee ci wàllu xiraa noonu la mel ñii ci wàllu rasmu lañ jëm ñii ci wàllu tajwid lañ jëm ñii ci wàllu maxaarika foofu lañ jëm maanaam ay liggéey yu baree baree bari ñu liggéey di ko jokkalante di ko jokkalante ba mu àgg si Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mu liggéey ci liggéey bu ràññi ba nga xam ne képp ku bokk ci moom am nga aw sas képp ku bokk ci moom am nga aw sas Serigne Touba radiyallahu anhu day musta musta gannaawal njàngum kenn rawat na njàngum jigéen ñi musta gannaawal njàngum kenn rawat na njàngum jigéen ñi nañ bàyyi xel ne saa bàjjan cosaanul saa bàjjan ci yoonu rek du jo du jànq du jànq bu ñu lay tuddee jox la ko pour mu liggéeyee la déedéet loolu de loolu du cosaan bi da ngay jàng alxuraan yor jikkoy alxuraan nit gis la ngay dund alxuraan mu bëgg doomam mel ni yow mu ne la naa ko naa la ko tuddee jox la ko mu copier la am soxna may muuna laa bëgg am soxna muslima laa bëgg am soxna muhsana laa bëgg nga tuddee ko ko jox ko mu dem copier ji melokaanu indil la. waaye du caa gën woon pour pour jox mu liggéey rek déedéet léegi nag da ngay dégg ñu bëree bëri ñaan ah am saa bàjjan da jëlul mu jàng mel ni saa bàjjan moom daal liggéey la war a def dem soqi dem fóoti dem déedéet déedéet déedéet loolu loolu mos sa nekk cosaan li njabootu Cheikh Nal Xadim gépp njaboot gi ñu leen joxoon dañ daan jàngal di leen yar di leen daan jàngal di leen yar kon loolu mat see bàyyi xel bu baax a baax Sëriñ Tuubaa kon liggéey ci téere bi dangay wax ne bépp lépp luy tax alxuraan sax fi rek waxtu yi moo ngi lu may dëgg dëgg ci détaillé waaye lépp luy tax alxuraan sax fi Sëriñ Tuubaa liggéey na ci lu ràññi ko waaleykum salaam bu dee jàng ko bu dee jàngalu ko maanaam jàng alxuraan sëriñ bi dañuy wax ne foo ma saan bëgg a xam ba xam wet gan la féete da nga tekk di déglu ndax fu mu nekk alxuraan yi dënd baa ngay riir alxuraan nga xam ne kon jàng ko ci la saxoon guddi ak bëccëg dawu ci nopp lu wenn waxtu bu dee jàngalu ko noonu jàngalu ko dañuy faral wax ne mbooloo moo xam ne jàng alxuraan mooy seen métier. ci ci Serigne Touba laa ko mas a gisee ci laa ko mas a déggee waa Daara Kamil ci moom laa ko mas a déggee ñoo xam ne wax maanaam waxtu julli wu nekk danañ ko gungee kaamilu alxuraan mbokk yi bis bu set waxtu julli wu nekk danañ ko gungee kaamilu alxuraan bis bu set ba Cheikhul Khadim ba mu nekkee gànnaar ba fii ñu wax ak yéen bu doon am Touba képp mu doy waaye boo demee Njaareem boo demee daar mu foo dem Daara Kamil nga fa mbooloo muy jàng alxuraan ci Serigne Touba laa ko mas a gisee noonu déggum ko fa ren bu dee bind ko mooy tax alxuraan sax bi Serigne Touba bind na ko bind na ko ay yoon yoon yoon gis naa tafsirul Jalaal ni boo xam ne ci loxol boppam la ko bindee radiyallahu anhu bu dee bind lu ko mooy tax moo tax ba sax bi bind lu ko bind loo na ko nu ne bind loo na ko ay mbooloo bind loo ko ay benn benn daan boole ñaar kii tàmbali téere kaw bi kii tàmbali téere suuf bi ñu àggalandoo daan boole ñeent ñu def fukki sama juróom ñu àggalandoo daan ko xaaj ñett ñi def ñaar fukki si kii def ñaar fukki si maanaam bépp xeetu bindin ba bind lu ko ci benn bis benn bis mu bind lu ko ci kaamil ci jenn ci benn bis dañ faral di wax ne boo ci àggee waa ma bi ne matara bi dafa xadis laay wax ndax ginnaaw sama am ci ku nekk la dafa am Sëriñ Tuubaa nga ci dëroo Sëriñ Mafari Njaay bi jur la bokk kon loolu lépp luy tax téere bi sax fi sëriñ bi liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy liggéey bu ràññi loolu na képp koo xam ne sa sa sa bokk nga ci moom dara maanaam xemmeem loo nit ñi téere bi wan leen daragay téere bi won leen wàcce waay téere bi feeñal ko ci wet yëpp feeñal ko ci ak jëf moom bu ma saan seen ku ti ku yor alxuraan sëriñ bi daawul nangoo toog ba nga agsi bu xasee xam ne alxuraan ngay yor dalay daal di daw gàttandu la dalay gàttandu dalay gàttandu ak loo nekk-nekk gone nag loo nekk-nekk tout tànk sëriñ Moussa Alima Guèye nee nañ bi muy bi dafa nekk tout tànk lool mu ànd ak waajuram sëriñ bi ne ko nu mu def ak téere bi téere bu mu doon nag dalay tuddal téere ba waaye bu dee téere bi maarifaal ko rek xamal ne alxuraan lay wax mu ne ko moom di jot naa mokkal mu ne mu ne ko bismillah mu tàmbali alif lam bi ci al muflihoon ji mu ne ko wax nga dëgg li nga tari ma seede na li ci des jël ko moom ci tout tànk teg ko ci kawam kuy agsi mu ne la bis gi tey tey kat damaa am gan gu tedd bëgg ma ko terale damaa am gan gu tedd bëgg ma ko terale daana wax ne ndaw lu mokkal alxuraan man Ahmadou Mbacke xamuma sikkam te boo ko kenn wax ndaw lu mokkal alxuraan man Ahmadou Mbacké xamuma sikkam teb ma ko kenn wax daana si nit bu nekk ca toolee bay mu ne xanaa keeru diw ñu ne kay mu ne alxuraan wóotu nekk ci naaj nga xam ne dootu gis shaxsiya insaaniya gi waaye alxuraan ji nekk ci moom lay gis daana yónni am kaang mu ne bërit bëgg a daw mu ko dalal da ngaa diis ku alxuraan nekk sa dënd wuroo dawal kenn daana woon nañ mu wool sëñ diw mu mag ñu woo sëñ diw mu ëppi at mu ne déedéet waxuma mii de sëñ diw nangam day wax maanaam ku xas mokkal alxuraan dootoo gone kenn kon bu dee jëflante bu dee ci worma bu dee ci wàccuwaay fii la sëriñ bi tegoon tegoon ñooñu alxuraan bu dee téere bi nag moom ñëpp xam nañ ko koo xam ne musta am musta tëdd ci kaw téere bi lay teg ci kaw tëdd ci suuf mbajji leen yi mbajji leen yi fu mu toll daf ko daan tegaleel alxuraan mbajji leen yi naari libane yi li ëpp seen i stock sëriñ Tuubaa ko daan jënd njaareen li ëpp seen i stock ci naari liba ci ci mbaj yi sëriñ bee taxoon ñu ko indi waaleykum salaam di sotti ci sotti gëttu gëtt ga libi libee sikki cent na ko suñu saako doon waxee libi ak sikki ak cent franc lañ daan di muy wala ngaan lépp alxuraan la ko daan sotti gëtt ga toog toog ci suuf di ko taragal déwul nangu lenn lu lu lu lu jege ak lu ñàkk warmal téere bi nee nañ andi soo xam ne mu bind ba ci yàgg tànk bi mel ni lu xaw toqi muy tàllal tànk bi mu far jëm ci kaamil nee na bi mu fommee tàllal ba rek bojj ko ci permis bojj ko ci permis ngir lan ngir tuubee ko kaamil bi tànk bi xaw a dëgmal fi kaamil bi nekk kon moom fii la tegoon téere bi it noonu la ñuy waxit nag wax di yàlla nee na lu ma am téere bee lu ma am rek téere bee lu ma am kitaabuhu saanani an kulli mafsadatin xool leen li mu wax bu baax lépp luy yàq lépp lu bon lépp lu noonu téere bi dox sama diggante moom wa kaffa an min ada kama mahadara nii lépp luy lor li ma sécurisé ba tubaab yi li ñuy bari bari ngànnaay mënuñu woon ci man dara alquran la kitaabun karimun min karimin mukarrimin ku fiitu bihi al aada wa danba wa shirka alquran moo dox sama digganteeg noon yi ba lu ñu bari bari ngànnaay lu ñu am am doole lu ñu bari bari pexe mënu ñoo ma am aste ci man ndax alquran ama yiir mooma aar kon ñun ñëpp luy bàyyi xel mu ne ilmi wa diini wa aadaati bihi salahat sama xam-xam bu sell bii ngeen yéem ci alxuraan la baaxee sama diine ju rafet yi ngeen yéem ci alxuraan laa ko amee sama aada rafet yi ngeen yéem ci alxuraan laa ko amee moo tax bi ne bihi unabbihu ahlal was ahlal asri min wasani ñun jamono yi ci laa leen di yee ko nangoo ku nangoo yow nekk wax na ko wawal kitaabu alladi man kaana qaadimahu zaka lahu al ilmu wal amalu wa shiyam nee na téere bi mooy téere boo xam ne képp ku sax ci di ko liggéeyal dana la garantel ñett yi dana la sa xam dana sell say jikko dana sell say jëf dana sell wa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra alqurana laa yansaahu ku bëgg a jege sa borom subhanahu wa taala na ngay jàng téere bii jëbul ko fàtt waxat fa ne ne qultu wa man yurid darrahmani fal yuthbitan tadabbur alqurani ku bëgg am ngërëmul yàlla na ngay jàng alquran te ko serendal mbokk yi lu nekk wax na ko inna tilawata alkitaabi mulku wa huwa liman yabqi najata fulku ñaar ñaar dong la bëgg lu mu ragal di ko daw ak lu mu bëgg di ko xëcc sëñ Tuubaa neen loo ragal di ko daw lu mu ñàng-ñàng boo ci bëggee mu ci jàppal ci alxuraan looy xëcc bëgg ko ak lu mu rëy rëy rëy boo ko bëggee jot jàppal ci téere bi alxuraan karim ak ak ak la ak ngóor bu dee muccukaay ak ak gaal la koo xam ne ci jàll kon kum doon ci ñun war a bàyyi xel bu baax a baax a baax wàccuwaay boobu ci jeexal nag bokk yi ñu ngi engrais soxna si bu baax a baax daara sëriñ bi sëriñ Touba de moo ne woon dane woon dane woon menn mag boo bëggee nit ki bañ a añ wàcc la nan ngay def mag mën a teg di xalaat lu muy tontu benn salum salum nekk ko Mbàkke faadal waaram Mbàkke faadal waaram ku am am ab tool bu bari ñax nga xëyal ko ci ba wàcc jot ku ne lay fàtte añ moom des yow Sëriñ Tuubaa ne yomal xiyam kon ku bañ ma añ wàcc la na dal ci sama waari ci sama waari mu alxuraan karim kooñ maañ wati la na nga daal ci sama waar ci sama waar mooy alxuraan karim day wax ne lu nekk nit mën na cee nekk dina tax ba xam neex na Serigne Touba wala déet ba mu des alxuraan alxuraan moom boo ci nekkee da ngay a waat ne lii nga nekk neex na Serigne Touba da nga ko a waat doo ci am benn nattale kon ñu war ci bàyyi bu baax a baax ci ne kon mooy mooy aw waaram mooy ab liggéeyam mooy mooy solaam mooy ay bëgg-bëggam mooy léppam kon ubbi daara waxoon na fa waxoon na nag ne mbaa yaakaaru leen gimiñ mucc naa ci gimiñ mucc naa ci gimiñ ñu ne ko ah Mbàkke yaakaaru leen mucc nga ci mu ne ah déedéet mucc ma ci ndax li ma gënoon a bëgg mooy toog sama dëkk bee di Tuubaa dafa jàng ka jàngale ca mënu ma ko am waaye naa ngi leen xam ne ku ma ko defal ku ma ko defal ma nekk sa jiba saa boo lambee daj ma daal ne daal ne doomi soxna yi bu ngeen ko deful nag a ah, da ngeen mel ni naar yi lu ngeen soxla mën ngeen ci jot waaye da ngeen tuñ tuñ ba tàyyi loolu sëriñ seen yi xam nañ dara da gis sëriñ bu toog fii di jàng ko jàngale am sëriñ bu tukki di wër gaaroo gaar mu wàcc ma train train mu dugg fa express bu ne mu dugg ca buy buy ñibbisi sëriñ bi fekk sëriñ bi toogoon recevoir loo xam ne mënu ko am moom bu fa nekkee ñetti weer sëriñ bi dana recevoir ci wenn weer loo xam ne mënu ko am léeg sax dañ dem naan ko am yób am yóbbaaleel ma sëñ diw yóbbaaleel ma sëñ diw ba mujj moom sëñ diw moom ma toog ëppale ko moom mi doon jëli mel sëñ diw la doon doxali jëni loolu kon xamee su bu baax a baax a baax ci kon ñoo ngi ciy encouragé bu baax a baax a baax soxna yi rawatina jàngal jigéen daara ju ne am na solo waaye rawatina jigéen seen nga jigéen mooy mooy ab société école noonu ko borom xam-xam boo waxoon rek al ummu madrasatun ida aadataha aadata shaaban tayyib al araq jigéen boo ko waajalee ni ko war a waajalee defar nga société bi dañuy wax ne boo bëggee yàq ab société fexeel ba jigéen ñi ak xale yàqu waaye boo bëggee defar ab société fexeel ba jigéen ñi ak ak xale yi defaru jigéen gu jàng jàng alxuraan ba mokkal macha allah jàng xam-xamam waaye waaye kooku moo sañee moo sañ ne sama daara sama doom dem daara sañ na ko sama doom du dem daara maa koy jàngal soxna si ginnaaw jàng na mën naa jàngal doomam man koo sañ naa téye doomam ne bi sama doom du dem daara maa koy jàngal jigéen dafa war a waaj nag ndax lii traverse maanaam xale bi marxala yi maraaxil yu njëkk yi jaar ci moom ca lu ci bari des ci moom loo xam ne bu jigéen ñi ñàkk jàng moo koy waral benn misaal rek laa ci joxe mooy jigéen waajal doomam ma ngi ko war a tàmbalee ca bu tollee ab diggante bu tollee ab diggante mbokk yi jigéen ku toll ab diggante xamul lu may déglu alxuraan xamul lu may déglu xasida Seexul Xadim radiyallaahu anhu bu dégg bëccëg mu nekk ca doom jooje bu juddoo day mbaax da koy yomb lool ndax dañ ko alimenté ci jamono jëm daataan garaat ma jigéen ñu bari dañuy jàpp ne ay caaxaan la waaye booy déglu alxuraan sa doom ji da koy dégg sa doom ji sa biir booy déglu alxuraan da koy dégg waaye booy def leneen ni da koy dégg am na doom joo xam ne bu tàmbalee jàng jàng dox rek tàmbalee fecc fekk yaay ja fecc la daan liggéey ba mu ba mu tombee loolu la jàng ci biiru yaayam day dégg alxuraan ji ji ngay jàng damay wax ne wolof yoo mën ko am misaal ñaata yoon nga gis doom ji juddu indaale ab léget ñooy la daa lakk yaay ji daa bu ñu ko am ëmbee daa am lu mu gisoon bëgg ca ca mosu ca indaale ab léget waaye waaye kon da yaakaar ne loolu donc lay yëg kon kon da yaakaar na lu yaay ji bëgg donc lay lay lay yëg ah, ah, ah environnement bi ko wër bépp da koy yëg kon bu fekkee mu yaay joo xam ne nag ay waxtam da koy dulal ci alxuraan day yomb ci moom am na ki gën a néew ay at jàpp ñeenti at la am ñeenti at mokkal téere yàlla moo tax am ko alxuraan kere bi ñuy laaj yaayam secret mooy lan mooy mu ne man dey bi ma ko ëmbee ba ni ma amee doom musuma tàggoo ak déglu alxuraan fu kaamil jeexee ma tàmbalaat beneen xale bi ñeenti at la am ñeenti at laa wax de mokkal alxuraan ñeent kon loolu mooy waajur wu ñu wu ñu waajal kon jigéen ñi nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax ci jàpp ci daa daara yu mel ni nit jàpp ci seen sàll doon na ko wax sànq rawat na jigéen ay pexe mën naa bañ a bari waaye buñ ubbee daara yi mel nii na nga xam ne ubbil nañ la ak toobaa ngi sa kanam boo xam ne doo fi yàq moom ak toobaa ngi loo xam ne doo fi yàq moom loo mën a def ci daara gi jàppe ko ci daara gi def ko am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne gi daara internat la am na ñoo la ñuy jàpp rek ndeysaan ay bu ñu xamoon internat li ñu dañuy daj duñ jumuraanke nag moom ala kulli xaal ab suñ daara moom loolu suñ bi day nekk sa jiba soo baa laa mi daj ma dama wax ne moom ñun moom duñ yor xaalis yot dagale xaalis moom bëgguñ ko waaye nag duñ torox de moom waaw soxla suñ am moom dana faju incha allah waaw waaye nag yow la dangaa war a bokk ci ñay faj soxla sax yéen suñ daara keesawaay yéen sëñ les keesawaay yéen yor ngeen yéen waaye yow sëñ bi yow yow bu ñëpp mel yow kañ lañ ko ko ñu yore te loolu mooy gis gis-gis ñu bari gis-gis ñu bari déedéet yow jàppal ne barab bi xoolat mbokk mi bu dee daara alxuraan yi ci misaal nga fexe ba yow ñuy mbaar daala ja nga joxe si sa benn saakub ciment wala sa ñaari téeméer bul ko xeeb de ñu mbaar daara ja mu tiim xale ya xale ya jàng seen raxas ya seen nafar ya seen bind ya xara fu ñu romb nga am ca sa fukki yool ñu transféré la ko directement amul fenn foo ko mën a jëlee imaginel tey wut sa saakub ceeb indi ko ci daara ji xale yi lekk ci ceeb bi bu ñu lekkee ceeb bi di jàng alxuraan ba ba muy rees araf fu ñu jàng ñu bindal la sa fukki yool foo ko mën a jëlee foo ko mën a jële lépp luy xeet yooyu ci def ci daara noon la mel mbokk yi kon nañu ci góor góorgóorlu bu baax a baax baax jàpp ci daara gi soxna si nag dëgëral ñi ngi wax bu baax a baax pëstéef boo am donte yàlla dogal na xëy na suñu gisa tey la njëkk waaye ñii ngi wax pëstéef boo am ak ak bëgg loolu nag moo ci am solo fa ida azamta fa tawakkal ala allah mbir yi ci loxol yàlla nekk nekku ci loxol kenn mbir ci loxol yàlla nekk nekku ci loxol kenn lii am solo nag moom mooy yitte ju kawee fexe ba yow sa gis-gis na kawe loo tàmbali ci daara ji jàppale ne ab tàmbali la waaye waaye jàppal ne ay étage nga war a am yu kawe day wax ne ki yitte mooy mooy mooy mbiram yitte nit daa war a daa war a am yitte ju kawe da koy faral di xale yi boo xale foo fekk xale yi xale bu ndaw boo xam ne bu rombee kër ñu xool ko oh, xool kër gi mu rafetee mu naan non man boo ma màggee kër gu dàq gi lay laay defar kooku am na yitte kooku waaye léeg-léeg gis koo xam ne naan ko sawaay boo amoon étage mel nii ngaan yii man kay sawaay ab gëm rek baax na man kay ñaari néeg rek ak pantre ah déedéet da ngay sa sa bët day sori da xam ne lo ci loxol yàlla ci mbir mi ci loxol yàlla wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin mubin ci loxol la nekk moo ko moo lay wërsëgal amal ak dogu amal pas séef ak ak pas-pas allah taala yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla boole daara gi ci daara yi gën ci daara yi gën ci ëpp meññet diir bu gàtt ba lañ ca àgg yàlla na ay résultat law ba ñëpp gis ko yomb na yàlla yàlla na ko yàlla def ñoo ngi jégalu baax a baax ci kaddu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. العالمين غامدون بمر Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer